no Moussa dëkk dafa metti mm-hmm. loolu it ma di ko yéene sama moromu jigéen yépp ndax tey ku ci ne war nga góorgóorlu ci sa goro jàppee ko comme sa yaay mm-hmm. te xam ne maire yi pratiquement ku ne xam nga li ngay dund ak sa yaay ndax mm-hmm. maire yi ku ci nekk tey ay humeur ngay am ñu di leen ñu di ci loolu parce que nekk mag dafa metti ñu di leen comprendre di leen jox nag lu doy place ci seen doom yi parce que accaparer seen doom yu góor yi rek denc leen ci ruq seen digganteeg ñoom <laughs> te maman duñ ci yem ah, xale jigéen yi dañuy def loolu pare non mais baaxul barke du ci am mm-hmm. parce que ku ne tey mën nga def neex. ne suba dinañ la fay bon. kon nag moo ñu war di xalaat ci bu baax ndax ñun ko ci bu mm. bari am ay jabar li nga doon leble rek loolu lañ lay fay. Mm-hmm. moo tax belle famille yi rafetal parce que lépp rafetal la. ndax li ñuy ci suñu belle famille yi macha allah yàlla. Mm-hmm. Mm-hmm. loolu suñu jabar yi di ci suñu famille yi est-ce que comprendre problème bu complexe maman. parce que damay ne jamais parce que le problème fléau national mhm. dañ mais dañ sujet non franchement parler dama bëgg xel ci parce que. Mhm. tout le temps dañuy wax euh, problème belle famille problème belle famille. Mhm. mais man mané yalla mo def ñun ay Africains déjà dañ gëm la jamais jamais jamais au plus grand jamais ma ko. suñu yaay yi considérer au même pied d'égalité ak loolu yàlla moo ko def. bu sax ñoom. Mhm. duñ leen ko meree yàlla moo ko def. kon war nañu nangul aussi suñu goro yi loolu. Mhm. parce que li valable ci suñu yaay. Mhm. moo valable ci suñu goro yi. voilà kon jeex na. parce que jamais ni ñu jàppee seen doom yi jigéen ñi parce que tey problème boo am ci sa néeg sëy boo ko waxee sa yaay mu sotle la ci sotle bu metti boo xam ne. bu fekkoon ne doomam bu góor moo am problème boobu du jël position boobu. loolu am na et c'est vraiment dommage macha allah c'est vraiment dommage. parce que loolu waroon nañ ci di bàyyi xel bu baax a baax. man dama ciy wax parce que dama ñeme sujet boobu Moussa du ñàkk dañ ci ñëw benn waxtaan bu yaatu li ma ci xam ci expérience mu wax leen ko. incha allah parce que dama ciy dama ciy aalo bu ma ciy dem dama ciy aalo franchement je je te dis en toute franchise laa koy waxee li may wax li ma ci sentir lay doon. Mhm. moo tax ma gën a ñaanaat jigéen ñi ñu gën a jàppale góor ñi ci loolu ndax góor xajul ci problème. nañ leen dimbalee affaire yi di romb ci yomb ci ñaari famille yi. Mhm. jaxasoo am. yoos am jàmm am. ndax yokkute rek la. nit du choisir ki mu war a àndal yàlla moo ko choisir loolu ndax nit ku ne bés bu set mu bëgg koo xam ne du sëy ak moom. Mm-hmm. kon sëy comme dafa sacré te yàlla moo ñu boole ak suñu jëkkër yi. Mm-hmm. nañ leen muñal. nañ leen yërëm mm-hmm. nañ leen déggal nañ leen tarbiyu nañ leen jàmm ndax loolu la ñuy alxuraan sant sant d'abord te ñun ay jullit lañ. dëgg la même bu dul alxuraan tey boo xoolee même chrétien yi tey boo xoolee ci sëy macha mi nga am benn ma chrétienne bu ma wax ma wax bu daw yaram. mais moo mu doon rek maman loo xam ne de résumé loolu yëpp. dëgg la nañ ci lu ba ñu am wéy. Mhm. nañ ci góor góorgóorlu ba ñu am succès. Mhm. parce que lu ñu def lu dul loolu lii lépp neex na. Mhm. mais réussite bi ci kanam moo daax. parce que njole nee na karo yi di melax ak kaat kaat yu baax yooyu. jigéen ñi liggéeyul mënuñ ci am. loolu am na. moo tax dañ war a liggéey pour suba ñu am ci loolu. parce que lii li ñu neex neex. loolu moo daax xam nga nga war a retraité rek nga retraité total nga noppalu ñu lay toppatoo dafa neex trop dafa neex trop moo tax nañ sàmm loolu waaw moom laay wax loolu laa na ñëpp moo tax ma bëgg ñu liggéey ko ba ba ñun ñëpp ñu yegg ci stade boobu macha allah tàggoo bi yàgg na parce que parenthèse la woon munuñ ci woon munuñ ci woon bañ a <laughs> munu munuñ ci woon munuñ ci woon bañ a dem uh-huh. bu ma remercier sama maman boobu sama njëkkee maa ngi leen di bisu sama rakki jëkkër yi et tout vraiment sama xarit yi sama cliente yi mais sœurs voilà madame Nia mami euh, ay Chacha borom borom Chacha couture uh-huh. Euh, euh, mag fashion voilà Ndeye Marème euh, ñëpp daal bu ma limee damay juum sama sama sama chérie Mado mhm. voilà et ma princesse Soraya dama ci am sax léegi ay doom bébé ah maa la ko wax dama am léegi non beneen affaire no beneen affaire la li ma seq li ma boole ak sama cliente yi maman mhm. non bu ma koy wax damay affaire la. c'est plus qu'une famille. émission na non c'est plus qu'une famille maman ndax nit ñi dañuy dem dañ lay duggal ci seen dund ba nga xam ne. Mhm. dafa ëpp. yaa baax. dafa te dama koy sant ndax confiance la maman ndax nit mën la dénk que nga yàq ko yaa baax nangu lool da nga baax <laughs> maman léeg-léeg kenn woo ma ne ma maa ngi ñuy bagage damay billahi azim tey dara mënu ma fee téye su ma waxee nga ne ma nangam ak nangam ma ne ko soo takkee sa bagage nga dem. Mhm. est-ce que xam nga fi nga jëm. gis nga kër yaay yi buñ ci xasee génn. billahi amatuñ fa sax soo taxawee ak sa saag nii. fu ma koy dugal ngay njëkk a bu tëdd jotee nga laaj fu may tëdd. <laughs> dëgg la nga bàyyi sa kër bu ne yàmbala. nga bàyyi sa néeg bu toll nu ko neex. nga équipé nu la neexee. nga bàyyi koo xam ne bëgg nga ko leer na boo ko wanee ginnaaw mu wéetal la. nga ne dangaa mer nga takk sa bagage dem sa kër yaay boo demee doo am foo teg sa bagage. doo am foo tëdd ñàkk fayda mënu weesu loolu. waaw <laughs> loolu laay tàggoo ci émission bi. xam naa ne ay émission yu bari laa boole ça donne des idées. franchement dinañ développer yëpp incha allah ne xam naa ne franchement li ñu leen yéene. Mhm. li ñu yéene suñu mbokk douze nag dañ leen gën a xam. Mhm. mais xëj na dañ gën a am chance su toog exprimer wu. te xëj na bu ñu waxee ñu déglu ñu. Mhm. ñu koy sante yàlla bu baax ndax loolu it jëfi yàlla la. du ñu waaw macha allah. ñu ko koy sante bu baax. madame Thioye joxel numéro bi te nga wax. waaw Nord Foire laa nekk Nord Foire maa ngi Nord Foire Apix 2. côté Blanche Dorée Nord Foire

mbokk yi dig daje ba beneen yoon waaye nag dama leen di wax li nga xamante ne moom la dem Thioye indi muy lan pétard de rose yu baax yi lépp loo xamante ne ni soxla nga ko rek ci wàllum Saint-Valentin waxuma la Saint-Valentin dong la mais après yeneen i yeneen. Mhm. yeneen i bagage yu bees mi ngi daal di ñëw ba tax na dama leen di jox dig ba beneen yoon ak yeneen i nekk nu jigéen ak yeneen i mhm. maa la promettre woon ne maa la ëpp bagage <laughs> ah samay yëf laa yor dama lay daal di wax bàyyi ba suba rek. ma la déggal leen ma maman fi may génn jonge ma neex laay fële. la <laughs> am Moussa. non on ndax man nee naa ko damaa jonge ba pare ma génne samay bagage non maman nee na ma dafa jonge moo ma ëppi bagage. ma sama jonge nga toog ba ci kanam mu ne ma suba xaw ma. Ah. am naa gëlëm ma nga gànnaar naxul kenn <laughs> ñëpp xam nañ la. te non man wax instant bi xol amul daral mo wax TV comme d'habitude comme ñu ko daan dama di jox di ci ak madame à bientôt peace. merci merci beaucoup. <laughs>